mbokki jullit yi mbokki taalibe nga xam ne yéen a ngi seetaan seen di top seen programme al académie bi nga xam ne seen sit bi ñuy wooye al azhar touba point com mi ngi leen koy defal dañ di leen ci defal seen jotaay bi ñuy firee di leeral maanaam leen ci Sëriñ Tuubaa yi muy jàngale diine ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci lu jëm ci ni arkaanul iman billah muy ponk gëm yàlla xam ngeen ne leer ñu ngi woon ci al iman billah juróom-benn ponk yooyu limaloon nañ leen ko ba tàmbali woon ak yéen fonk bu njëkk bi ba leeraloon leen ñaar fukki melo yi nga xam ne mooy melo yi nga xam ne sax na ñeel yàlla di melo yi sax yu taqoog yàlla ñu war a ñëw ak yéen ci safaani melo yooyu muy yi nga xam ne dafa dàqoonteeg ñaar fukki melo yooyu te saa boo gëmee ñaar fukki melo yooyu rek day laaj nga gëm ne yu dàqu lañ ci yàlla yu sor leen ci yàlla ndax màggaayu yàlla ak mataayu yàlla laaj na ñu sori ko te ñu moom. moom la Sëriñ tubaa radiyallaahu anhu jubloo wax fii ne wa annahu ak ne moom maanaam ni ngay gëme yàlla mooy nga dëggal ne moom yàlla tastaxiinu dana jomb alayhi ci moom. addaadu si sifaati safaani yi melo laa tamilu buleen leen jàng wala kon bu leen jàng dafa wax ne gëm yàlla mooy nga dëggal ne safaani ñaar fukki melo yooyu mu la waxoon tàmbalee ci alwujud ba ci alkalaam ñaar fukki melo yi seeni safaan mooy yi dàqoonteeg ñoom day dàq nga gëm ne dañoo joom maanaam mënuñoo am ci moom yàlla ndax màggaayam laaj nañ ñu sori ko lool ak ak mataayam min adamin cig ñàkk maanaam mooy ak ñàkk mooy safaanu am danañ ko leeral buñ àggalee suma topp xudusin ak sosu woo fanaa aku jeex tamaasulin aku yamoog mbindéef yi suma topp iftiqaar yi ak aajowoom jëm ci ndara kanaa ni ñun taaddudin ak limu ajsin ak lot karaahatin ak sib wala sibeel ci waxin ñenn ñi samam tëx jahlin réer wa mawtin ak dee wa aman ak gumba summa topp bakamun lu wa kawnuhu ak nekkam aajisan di aji lot aw asamma wala muy aji tax aw kaarihan wala muy aji sib aw jaahilan wala muy aji réer aw ama wala muy aji gumba aw mayitan wala muy aji dee aw wala abu kama muy aji luuhu subhaanahu tudd naa sellam gi nasaluhu ñi ngi koy ñaan bi fadlihi ci mbaaxam ci ngëneelam xufraanahu ak njéggalam kon ñaar fukki melo ñaar fukki safaan yi nga xam ne ñooy safaan ñaar fukki melo moom la Sëriñ Tuubaa jubloo lim ba ca jiitu mooy al adam mooy ñàkk ñàkk mooy safaanuk am kon ñàkk bala ngaa gëm yàlla dangay gëm ne dafa jomb ci yàlla mooy ñàkk am ba ca topp mooy sosu mooy am ba noppi waaye nag tàmbalee fenn mel ne mbindee fi loolu tam dafa jomb ci yàlla màggaayu yàlla akuk matam laaj na mu jomb ci moom jeex mooy alfana mooy dem ba yàgg nga jóge fi jeex am moom tamit dafa jomb ci yàlla màggaayam ak mataayam laaj na mu sori ko lool yemoog mbindee fi mooy tamaasul yemoo mbindeef yi ci lenn moom tamit dafa jomb ci yàlla nga gëm ne jomb jomb na ci yàlla lu war la ngir nga nekk mu'min xaqan nga nekk gëm yàlla dëgg-dëgg al iftiqaaru ba tey mooy aajowoo dara moom tamit dafa jomb ci yàlla kon ci ni ma koy limal nii rek mën nga ci xamaale li seen tur ak ñaata lañ boo ko teewloo bu baax a taadudu limu ba tey moom la jubloo wax taadudin boobu mooy nekk yàlla yu bari nga xam ne jëmmam ji day ñe ku dut moom da koy am wala meloom wax wala jëfam ji keneen di ko jëf ku dut moom loolu tam dafa jomb ci yàlla lottu mooy ñàkk bëgg a def dara ba noppi am ñàkk am kàttan ci man ko ci def ci def ko loolu tam dafa jomb ci yàlla mooy moo jàkkaarloo ko xudra mooy kàttan sibeel mooy mooy mooy safaanum nammeel mooy maanaam def dara ba noppi sib li muy def nga xam ne li muy def du ko bëgg da koy def ngir ñàkk fexe wala ngir te nekkut bëgg-bëggam loolu dafa jomb ci yàlla li sax ci yàlla mooy nammeel nga xam ne lu muy def da koy bëgg da koy tànnal boppam ba ba bëggal ko boppam te du ci diisoo kenn da koy def ci doole boppam ak ci bëgg-bëgg boppam samam tëx mooy safaanug dégg moom tam dafa jomb ci yàlla danañ leeral ci kanam tuuti euh, aju ay leeral yu aju ci jomb giñ jomb ci yàlla ak lu ko waral jaxlun réer mooy ñàkk xam wa mawtan ak dee ak mooy safaanu dund gumba mooy alama gumba moom tam dafa jomb ci yàlla day laaj gëm yàlla day laaj nga jombale ko yàlla luutam mooy ñàkk mën a wax gëm yàlla day laaj nga jombale ko yàlla mooy albakam juróom-ñaari melo yi safaanoo ci li taamle woon ci alqudra ba ci alkalaam moom tamit noonu lay demee fii rek seeni safaan day jomb ci yàlla kon alajsu boo ko gëmee ne jomb na ci yàlla day laaj nga gëm ne yàlla mu lot ci dara day jomb ci moom mooy kawnuhu aajisan noonu nga koy waxee rek ba ci kawnuhu abkama kon kawnuhu asama day jomb mu nekk ku tax day jomb ci moom wa kawnuhu kaarihan ak ak nekkam di aji sib li muy def day jomb ci moom aw jaahilan wala mu nekk aji réer ñàkk xam li muy def wala ñàkk xam dara luy daw ci ci ci mbindeefam yi day jomb ci moom wala mu nekk aw mu nekk gumba ku gis li am loolu tamit day jomb ci moom aw mayitan wala mu nekk kuy dee aji dee moom tamit day jomb ci moom wala mu nekk ku dul wax day yooyu yëpp dañoo jomm ci moom gis nga lem ca teg nag mu wax ne subhaanahu tudd naa selam nga <laughs> ndax melo yooyu yëpp ay melo yi sifaatu ma xawaadis lañ maanaam melo yu mbindeef yi sosu lañ te melo lañ ay melo lañ tam yoo xam ne ci ak manki ak uh, sa aju sa mbir aju ci kaneen ci lay juddoo te suñ borom léppam ak mat la léppam ak doyloo la ci boppam moo waral mu ne subhaanahu tudd naa selam nga ci melo yooyu ak lépp yëpp lépp lu niroog melo yooyu mu wax ne nasalu ñu ngi koy ñaan bi fadli ci mbaax xofalaanoo njéggalam njéggalu yàlla ñu ngi ko maanaam lu yayoo ñaan la ci tolluwaay yu mel nii boo jàngale tawxiid ndax suñ borom mat gum mat ak màgg gu màgg ak lott guñ lott ñum doomu aadama yi ci ci ci xam ko dëgg dëgg dëgg mel na loo ko jox àqam ci leeral ko rek mën naa am na loo bàyyi loo xam ne yëgoo ko moo tax booy leer jàngale tawxiid foo toll war ngay jéggale yàlla bu baax a baax ndax sag mat àggut ci sax leeral nit ñi tawxiid ni ni ngi leen ko war a leeral dëgg-dëgg ndax suñ borom rek moo xam boppam kon boo ko bëggee xamle lu sam xel gudd gudd tam bu fekkee nangu nga màggaayu yàlla dëgg-dëgg ak matam war nga koy jégalu lu baax te xam ne am na am nga ak lot ci li nga bëgg a def. boo gisee ñu ne juróom ñaar fukki melo yi muy safaani jomb nañ ci yàlla nag. mooy al uluhiyatu wa rububiyatu mooy ak mbóore nekk mbóor ak nekk nga xam ne moo bind mbindéef yi ba noppi ñu war koo jaamu jox ko jox jox ko mbooleem luy ak jaamu yàlla ba noppi ak borome mooy mu bind mbindéef di tëral seeni mbir di ko doxal ci nam yelle yooyu dafa laaj am melo yu laaj te mooy ñaar fukki melo yooyu mu ñu waxoon léegi te mooy li taam lañ al wujudu ba ci al al al al kalaam moo tax boo sax boo leen saxalee rek ci ci saa si rek automatiquement rek da day seeni safaan dañoo war a dàqu moo tax lépp loo xam ne day niroog yëpp benn ci melo yi rek pas-pas bu mat da koy da koy dàq gëm-gëm bu mat da koy dàq du toq sax ci xelum nit mu di ko mu di ko xalaat ba tey bokk na ci nit ñuy gëmee yàlla wa annahu ak dëggal ni moom yàlla subhaanahu wa taala seeram laa mu du war alayhi ci moom shay'un dara maalum man di doon walay sa yu jabu te deesu ko waral itam bal an ali fene fi'lu kullu li mumkin def lépp lu jàpp ne wa tarku ak bàyyi ga jaasa dagan na fi xaq yi ci yelleefam falaata sukk kon bu leen sikk sàkk mu wax ne bokk na ci ni ngay gëm yàlla nga dëggal ne moom yàlla dara warut ci moom ak lu mën doon nag ak lu mën di doon bind gi bind Seydina Muhammad sax warut ci moom bind gi bind mbindeef baax yeeg lépp ak xéewal yim defal doomu aadama yi ak bind gi mbind asamaan ak suuf ak lépp loo lu sa xel gis ne mbir mu màgg la wala xel jaadu rafet na ci xel mu am wala sax rafet na ci xel sa xel mën naa àgg ci munta ñàkk wala dara loolu lépp na nga gis ne dara waru ci suñu borom lu jaadu la rek mooy loo xam ne ak amam ak ñàkkam ñooyam ci moom ndax mooy ki nga xam ne ba muy am dara amul wut woon ak moom dafay mas a nekk te su fee jóg moo toog moo toog ba mu neex ko mu gis xekk ak xereñam ak mbaaxam laaj mu bind li mbindeef yëpp ak lim ci def lépp kon noonu nga koy gëme gëm ne lu am moo ko def lu lu ñàkk moo ko ñàkkal te ci coobareem loo ko defee ak ci ak mbaaxam loolu mooy pas-pas bu mag bi pas-pas bu mat bi moo tax mu ne yooyu kon dafa loolu dafa jaadu ci yàlla rek lu pas mooy loolu ngëm loolu mooy pas-pas bu wér bi nga xam ne kenn waru ci am sikk saaka kenn waru ci am ak déng-déng ndax mooy dëgg-dëgg pas-pas bu wér mooy pas-pas bi nga xam ne boo ko amee ci ngay amee ngëm gu wér gu gu gu gu wér a wér gu mat a mat saa boo waralee ci yàlla dara rek léeg dàq nga melo yi nga saxaloon ci moom iraada ba nga saxaloon ci moom ci misaal mooy def dara ci nammeelam ci bëgg-bëggam kese saa boo waralee ci moom dara rek kon dàq nga ko yeneen melo yi yëpp noonu lañuy demee saa boo waralee ci yàlla dara rek wala nga ne jomb na yàlla di ko def li jomb daal mooy lu dàqoonteeg melo yooyu li lépp lu dàqoonteeg melo yooyu daal mënta am moom waaye lépp loo xam ne jëfam lañ joo xam da koy def ci coobareem rek jëf la ju muy def ci mbindeef fi loolu moom jombut mun lu du jomb du war ci coobareem lay ayu mu mu ñëw yow nag ci ci ban tegtal lañ tegtaloo ci ba ci amu yàlla ba xam ne yàlla am na ci xel ci xel ban tegtal la xel sukkandiku ba wax ne yàlla am na mu ne amale si ndaal la nga xam ne dala tegtale na alal wujud ca am ga fa sunuhu mooy jëfam ji almuarif ji aji leeral an tawxid ci wéetal yàlla is ngir kullu sunaatin jëpp jëf dalilatun ab tegtal la ala saaniha ci aj jëf ko li kulli man ñeel képp koo xam ne taaqala xelu na nee li nga xam ne moo moo ñu xamal ñu doomu aadama yi ci sunum xel ne yàlla am na donte sax ci sukkandikuñ ci alxuraan wala sunna loolu mooy dañoo seetantal ci suñ xel rek bi mu aadama bu am fitra bu mucc rek boo toogee xalaat asamaan si la wër ak suuf si ak montagne ak ndox mi ak yépp nga xalaat ne junni junni at a ngi nii benn doxin wi la am te dara mos cee soppiku mos ta sooxe te doxin wu rafet la wu mat loolu li muy tegtale mooy maanaam am na benn buur bu mat bu ci ginnaaw yooyu te moo ko amal loolu lépp loo xam ne am na rek am na ku ko amal te jëf joo gis rek mu am ka ko jëf lay tegtale moo tax mu ne alaa xanaa gisoo baaratan aw neferu giléem taddulu naa di ñu tegtal alal bairi ca giléem ga wa xadama ndëggu xanaa gisoo ko taddul mu ñu tegtal alal masir ca ndox ba kasaani ki ni samaawun ay asamaan asamaan si wala asamaan xad daa daalaaq abraajan ay ngunu maanaam ay yoon yoo xam ne ci la nujum di jaar wala ci la kawaaki bi di jaar min fawqi ardin ci kaw suuf si it xad xawat daalaaq af jaajan ay yoon yu xóotu mu yoon yi ne ci diggante ay montagne wa ab xurun te ay géej itam xadix taxoon daa làq am waajan ay duus wa ma sama in te ndoxum asamaan munzalun lu ñuy wàcce la sajjaajan mbir muy aji yor taddulu yooyu yëpp taddulu day tegtal kulla zin nabaaxatin képp ki borom ak yeewu wasiirun kuy aji gis-gisu xol xat an cig dog sik sàkka ala baari il bariyatil qadir ci aji sàkk mbindeef yi kii aji kàttan ji aji kàttan ji aji mooy ji aji am doole aji jëfandikoo dooleem ci lu ko soow dafa joxe ay tegtali xel yoo xam ne xel mucc ayib mu ne mën nga ko nangu ba ci jëkk mu ne tey boo doxoon tey ba gis aw neefaru giléem ci yoon wi da dalay leer ne lii moom giléem a ko fi def moom ci giléem la jóge kon giléem am na kon ngay daal di xam ci sa xel boo gisee tam dox ba yaa ngis gis tànk bu ci aw yoon tànku nit wala tànku dara dalay tegtal ne maanaam nit a fi doon dox nit a fi jaar wala tànku loola moo fi jaar asamaan tam boo xalaatee da gis ne am na ay ay ngunu mooy ay yoon yoo xam ne ci la ci la kawaaki bi di jaar sam jant beeg yëpp ak biddiw yi ci la ñuy aw bu ci ne am na yoon boo xam ne du ko wàcc loolu yëpp am na lu muy tegtale mooy am na buur bu xereñ bu ne ci ginnaaw yooyu di ko doxal na ko bëggee suuf si boo xoolee am na ay montagnes yu ci ne yoo xam ne ay yoon yu xóot moo ne seen diggante kon loolu yëpp lu muy tegtale mooy maanaam am na buur bu mat bu am xam-xam bu am xereñ buy buy doxal mbindeef yi na ko soobee ndax jékki jékkiwuñ wuñ rek am géej gi itam boo ko dee xool am na ay duus yoo xam ne day yéeg ak a wàcc ak di fuur ci ay waxtu yu ñu ràññale loolu lépp day tegtale kàttanu yàlla ak nammeelu yàlla suuf ndox mi wàcc ci asamaan si itam nga day jóge ci asamaan ba ci suuf ci kaw ba ci suuf def wenn rëdd ba agsi ci suuf te du jàdd loolu di di di di di yol lool tam ab tegtal la ci xerañu suñ borom ak ko amam ak tadbira mooy tëral gi muy tëral mbir yi ci anam gu mucc ayib kon yooyu yëpp daal nee na ku am xel di gis-gisu xol di seetantal da lay tegtal ci bu leer a leer ci anam goo xam du àndateeg benn sikk sàkka da lay tegtal ni am na ko bind mbindeef yi te mooy yàlla mi ngi xam ne ku am kàttan la loolu mooy jataay bi fii mooy yamukaay jataay bi ñu seqoon ak yéen ñaar jataay yi ñu seqoon ak yéen di ci leeral al iman billah nga xam ne mooy ponk bu njëkk ci arkaanul imaan ah, al iman billahi nag buñ fi ñuy jeexale ci jàngale ko war nañ ci jële ay pas-pas yoo xam ne mooy mooy tax jullit bi mën a nekk bu ko jëfee ci lay nekkee muslim ci lay nekkee muhsin ndax ñaar fukki melo yi nga xam ne ñooy ci yàlla ñoo war ñeel yàlla ñoo sax ñeel yàlla yooyu boo leen gëmee dëgg-dëgg gëm foo man di nekk itam dangay mën a dangay sàmmoonteeg yàlla ci sa xol ak ci sa lépp ndax dangay xam ne benn buur a fi am bu mat bu màgg bu yeyoo jaamu te moom bind lépp mooy doxal lépp te moom rek lañ war a jaamu te bind jaamu ko doon moo tax ñu binduñu te boo ko jaamoo am na doole fay la nam nam na ko dige soo ko jaamu itam am na doole mbugal la ci ñàkk jaamu googee te loo def gis na ko loo loo deful gis na ko te sa yéene xam na ko say wax xam na ko say jëf xam na ko kon li muy laaj mooy dawaamul muraqabati lillaahi pas pas yi nga war a amee ci gëm yàlla boo ko ci amee dëgg-dëgg foo toll da ngay fuglu yàlla ci sam ci sam ci sam xol di ko bàyyi xel foo toll di ko fuglu ci say jëf mooy di jëf lim def li bëgg di bàyyi lim tere te loolu mooy daal di nekk al islaam mooy day laaj kon nga xam li yàlla bëgg lu mu doon ak lim bañ lu mu doon lim lim rafetlu ak lim ñaawlu nga tànn lam bëgg nga di ko def lim lim bañ nga di ko bàyyi te itam day laaj nga nga nga aw ci yoon wu juba jub ci ci ba ngay def jëm ndigal yàlla yi ak ba ngay bàyyi ay tereem ci wàllu sellal ko ci wàllu teew lu ci jëmm yàlla ji ci wàllu jublu ci jëmm yàlla kese ci wàllu sàmmoonte ci euh, ak ak sellal te boobaa nag kon ci ngay nekkee mu'min muslim muhsin kon dafa mel ni al mu'min xaqan mooy ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg laa budda an yakuna musliman wa muhsinan gëm yàlla dëgg dëgg nu mën a def day nekk muslim day nekk muhsin boo demee ci yenn addis sax léeg-léeg dañuy jëfandikoo baatub iman jublu ci euh, baatub muslim jublu ci mu'min wala ñu jëfandikoo baatub ci muslim muhsin nga xam ne ñetti baat la ñoo xam ne léeg-léeg dañuy wutante foo jëfe ihsaan tam dëgg-dëgg jëfe iman xaqan day daal di ñëw islam xaqan day daal di ñëw kon ñetti baat lañ yoo xam ne dañuy mot dañ dañ jenn jëmm lañ rek mënees te jàpp ci lii bàyyi ci lii waaye boo ci jëfee dëgg-dëgg jëfeem rek mooy mooy mooy jëmmal la ca des mooy al iman wal islam wal kon fii la ñuy tënk jataay bi di seen ci seen programme bi ñu woy te seen sit bi ñëwooy woy al azhartouba point com di leen doon leen ko defal di leen wax ne rek bu ngeen bëggee abonné ci programme bi man ngeen ni clic fii ma teg sama loxo rek daal di bind seen mu euh, seen unwaan bari di mooy seen adresse email ak seen mot de passe suñ ko defee rek da ngeen daal di abonné wu automatiquement di man di seetaan seen jataayu firim ak leeral téere Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne moom la daal euh, di jàng lislaam